moom nag nee na euh, kii di Ababacar Mboup delluwaat na dikk fële cee ñaar fukki fan euh, delluwaat na tey fële nga xam ne rek moo di euh, dikk ginnaaw ba mu daal di porter ki kile di Bah Diakhaté li mu visé nag bokk na ci wàllum diffamation maanaam waxul ko lu dëgg ak li nga xam ne rek moo di ay joxe xibaar yoo xam ne warul maanaam division de fausse nouvelle boobu la nag mu ngi ko déposé ci ñaar fukki fan ak ñett maanaam 23 mai bi ñu génn la ko daal di woon euh, jëbal ki nga xam ne rek moo di Crédit baajaxate tey jii nag la ko waa division des investigations criminelles sàkk woon mu dem leeral ñu daal di ko laaj yenn ci ay question ginnaaw ba mu génnee nag nee na euh, présentement je suis à la DIC concernant la plainte déposée le 23 mai contre le monsieur euh, Ba pour diffamation et division de fausses nouvelle il devra apporter des preuves de ce qu'il euh, m'accusait ou la justice fera son travail a déclaré Ababacar Mboup moom nag nee na kàddu yi nga xam ne kile di Bah yëkkati na ko euh, teg ko ci nderam bu dee wala ci ndoddam dafa bëgg daal mu daal di ci indi ay preuve wala it mu daal di ci indi lépp loo xam ne rek ay firnde la ndaxte du ko bàyyi benn yoon mu jël ay kàddu yu ni mel teg ko ci ndoddam te kàddu yooyu amul ci firnde wala amul ci benn preuve ba tax na day sàkku rek justice def kem talaay kàttan ba Bah mi mën a teg ay preuve ci accusation yi nga xam ne eh, teg na ko ci ndoddam ba léegi ki nga xam ne rek moo di Ababacar eh, Mboup moom mooy wéy di daal di yëkkati eh, yile kàddu cette plainte fait suite à une publication sur Facebook dans laquelle Bah Diakhaté accusé Ababacar Mboup d'avoir été victime de sodomie pour par un parent très proche Selon Diakhaté, ces actes répétés auraient causé à Mboup un traumatisme profond, infligeant euh, influ euh, des perspectives et comportement de source sûre Ababacar Mboup aurait été victime de li nga xam ne rek moo di sodomie de la part d'un parent très proche il aurait été violé à maintes reprises parce ce dernier li nag doon na ay kàddu yoo xam ne rek moom Bah moo ko daal di woon yëkkati nee na daal ki nga xam ne rek moo di Ababacar mu moomee dafa mos dund ci wàllum siifa ki ni mel ba tax na loolee sax daf koy indil wàllum jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ak yu ni nag moo tax daal porte euh, plainte euh, sur ce muy euh, wooyu moom ki nga xam ne rek moo di suñu ay informateur ñu ñu xamal ne ces faits lui ont causé un traumatisme tel euh, tel qu'il voit de la euh, filie partout, le jours, la morgue, etc., et vit une situation très difficile. Ce collectif et en effet une sorte d'exécutoire qui lui permet de déverser son trop-plein de frustration, euh, de la haine, aurait déclaré Bah Diakhaté mu doon ay kàddu yu ñagas yoo euh, xam ne rek moom mi nga xam ne di Bah Diakhaté yëkkati woon na ko di ko tuumal Ababacar Mboup mu mel ni nag moom ginnaaw bu mu daal di dugalee ab plainte tey jii demoon na ci division des investigations criminelles ba ñu ko daal di déglu waaye nag moom li mu sàkku lenn dong kese la mooy Bah Diakhaté yi nga xam ne yëkkati na ko wala accusation yi nga xam ne eh, teg na ko ci ndoddam loole nag na def kéemtalaay kàttan ba daal di ci indi li nga xam ne rek moo di ay preuve bu ko deful nag justice moom ci boppam na daal di leeral mbir moomee mu doon ab mbir boo xam ne it tout à la ñu ko daal di xibaar jaarale ko eh, ci réseaux sociaux yi moom mi nga xam ne moo di Ababacar Mboup moom sax ci fàttali moo jiite jëm ci wàllu borom ñaari tur yi mu doon ab mbir boo xam ne certainement du ñàkk dina gën a jafe ci ki nga xam ne rek moo di euh, ba jaxate te gis nañu fu ñu toll nii daal euh, plainte yaa ngi tawee fu ne jëmale ci moom moomee ginnaaw ay kàddu yu ñagas yoo xam ne yëkkati woon na ko daal di ko jébbal ñenn ñoo xam ne rek dañu fi nekkoon di dal di jël li nga xam ne moo di euh, kàddu en tout cas loolu moo gënoon a fës xam naa ci kanam rek du ñàkk ne bu amee leneen loo xam ne fas na ci eh, fële ca tribunal bu diwaanu Dakar dinañ wéy di ci daal di ànd ak yéen di ko yaatal également ak yéen ba dara rek du leen ci daal di rëcci eh, bu ko defee ñu wéy di leen bàyyi ak suñu ay ndaw yi nga xam ne ñu nga ci tribunal di wéy di leen toppal ay xibaar yu wér te wóor ci kanam tuuti incha allah dinaa fi ñëwaat ak yeneen ay xibaar jërë ngeen jëf. boobu boobu lay taskatu xibaar hmm. sànq ay famille ba jaxate ba du ñëwee hmm. ci réquisition bi lan lañu wax hmm. loole amul journaliste yi ñoom ñoo ko génnee mais tey audition boo xam ne journaliste fekkeewul teewul nu indi li nga xam nag moo di ay information vraiment loolu gën aussi war nañ ci mën remettre encore li nga xam nag moo di ay question mm. moo tax mën la biir Sénégal fii rawatina li nga xam nag moo di presse bi lu ñu for jubbanti bëri na lool moo tax mal assise nationale bi nga xam ne ñu ngi koy amal naka suba hmm. buñ ci paree nañu amal benn assise boo xam ne ci presse bi la te loolu gën tey jii ki nga xam tey euh, na ñu ngi si li nga moo di benn rôle bu am solo ndax du nañ fa événement yoo xam ne ci biir presse bi moom wax dëgg yàlla la communication bi sax bëggoon naa ak ñun xam naa dañ ko annulé xam naa ne après lii bu passé dana ko mhm. a euh, waxtaan ak ñun pour mhm. mën a xool yan condition la ñuy gën Euh, parce que yëf yi tamit lu doy waar la. vraiment moo tax man la man à chaque su may dégg ay mbir nu naan ko nu naan non journaliste bi nga xam ne tey moom a wàcc hmm. problème bi ci kooku la. Hmm. parce que tey jii imagine toi ñun ñi nga xam ñoo nekk ay journaliste reporter bu ñu wàccee fii ci bon tribunal bi. Hmm. lépp lu fi fee. képp ko seetaan di nga ko am mais problème bi dafa dem ba ci kaw maanaam li nga xam ne nag moom lañ duppee les patrons de presse gis nañ fi benn journaliste nekk aussi patron de presse toog ni carrément man ci régime bi nii laa doon def ba fay li nga xam nag moo moo di correct génne li nga xam nag moo di ab pour rectifier li nga xam nag moo moo mm. mm. de presse bi ñooñu li nga xam nag moo di ci pour indi li nga xam nag moo di ab saafara ci li nga xam nag man tamit damaa gëm ne journaliste mm-hmm. boo xam ne da nekk professionnel ñu tàggal la. war ay patron de presse warul lay mën a tënk. journaliste dafa war a am liberté dafa war a am indépendant di joxe information yoo xam ne maanaam yu yu am yu yu am yu yoo xam ne yu vrai la. yaa ngi dégg traité ko si façon boo xam ne nii moom lañ la ko mais bu fekkee ne patron de presse bi tamit dafa am benn ay cible. teg na la dafal di la nar laay tënk. yow tamit sa liggéey doo ko mën. Ah. moo waral yenn presse yu bëri yooku xam naa ne benn changé ay DG ñëpp ñu gis <laughs> affaire ko ñëwaat ci question bi nga xam ne mooy si wàllu démocratie mm-hmm. ak liberté liberté d'expression ñu gis ko Sénégal est-ce que démocratie dëgg la démocratie mooy nit ñi dañoo war a dund war a wax liberté d'expression ni ko nekk war ngay wax loolu neex mm-hmm. war ngay wax mais est-ce que tamit àgg na si nit ki tuumaal nit saaga ko comme saaga ko tuuma wax loo xam ne ni amul si benn preuve te bi ñu la mm-hmm. ooyee doo indi benn preuve est-ce que loolu tamit jëmal na réew kanam. voilà xam nga xam nga Sénégal fii. Hmm. mënuñu def la part des choses. Hmm. maanaam démocratie ak li nga xam ne nag moo di liberté d'expression. Hmm. liberté d'expression boobu ma def si entre parenthèse. liberté d'expression ak li nga xam tey jii moom mooy toog wax lu la neex. dafa am différence. liberté d'expression xam nga mooy lan. mooy man mii ma toog gis ni carrément soble bi chair na. ma ni carrément régime bi nekk en place liggéeyuñu parce que soble bi dafa cher. am na ay ndaw yoo xam ni euh, am nañu seen i diplôme te jusqu'à présent amoon li nga xam nag moo di liggéey ma jël attaqué li nga xam ne nag moo di nguur gi parce que ñoom ñoo ñu dig li nga xam nag moo di emploi des jeunes ma toog gis xam nag moo di insécurité am na ma toog dénoncé li nga xam ne moom mooy li nu mel ma gis ni carrément li nga xam ne nag moo di yenn débat amul li nga xam ne nag moo di objectivité ma joxe si li nga xam ne nag moo di point de vue loolu moo tax nu naan li nga xam ne nag moo di liberté d'expression fu nu toogee nu diw ci mbirum homosexuel def naka si naka sudul noonu tuddul li nga xam ne nag moom mooy turam ba pare ni am naa ci li nga xam ne nag moo di ay preuve est-ce que loolu liberté d'expression la nit wax ma fël-fële saaga ko maanaam créé li nga xam ne nag moo di une pensée unique ni ko carrément li nga wax du dëggu du yoon est loolu liberté d'expression la donc je pense bien que si am na ci li nga xam ne moo di wàllum démocratie yow sa liberté fi mu jeexee man sama liberté foofu la commencé donc foo gën aussi tànk yow munoo munoo ko nangul hmm. munoo ko nangul aussi li nga xam ne moo di sa vis vis li nga xam ne nag moo démocratie amul foofu hmm. tey jii fan laay gën a ni carrément Sénégal fii démocratie am na fi mooy fu nu demee jël li nga xam ne moo di moo di euh, exemple laa la jox hmm. ak li nga xam nag moo di APR nu toog bu fekkee Pastef moom am li nga xam nag mooy dëgg APR ni ko carrément am nga li nga xam nag mooy dëgg mais tey jii xoolal est-ce que loolu mën hmm. euh, pense bien que tey jii loolu mën nañ ko euh, mettre fin ci li nga xam nag moo di ci biir Sénégal ah, alors que le 28 bi sax dem dem suba sax mhm. euh, wax nañ ne sax am na ñoo xam ne ni APR lañ bokk te convoqué nañ leen si dialogue bi tey ku ci mel ni Amadou Ba. waaw noo noo ko gisee. ñu si bëri noo gisee Pastef ak euh, maanaam euh, démarche boobu ñu def daal noo ko gisee. <laughs> waaw ñu ci bëri di sa di sa mbopp laaj. naan naan Amadou Ba dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko invité. pour pour pour APR. Mm. wala dañ ko invité moom mu demal li nga xam nag mooy boppam ndax umpale wala si ay information mm. ñu ngi ni wax ni boo moytul dina génn li nga xam nag moo di APR et cetera et cetera. Mm. ñoom it neen la xëy na ñoom dinañ répondre ci li nga xam nag moo di ci boobale question. en tout cas man de bu ma gisoon benn assise boo xam ne amal nañ ko fii assise entre guillemets dialogue dialogue dialogue laay a wax quoi. Mm, mm. nu amal ko fii te Amadou Ba wala sax APR teewoon ko. Mm. man je pense bien que euh, dialogue boobu dina xaw a safadi. parce que il faut que ñu waxante li nga xam nag moom moo di dëgg. Euh, waxuma APR mais Amadou Ba en personne mm-hmm. je pense bien que ak lépp luñ ko mën a rapproché ak bépp parti bu mu mën a bokk mm-hmm. am na benn expérience boo xam tey jii bu ko toogee wax ko li nga xam nag moo di sénégalais yi wax ko aussi li nga xam nag moo di jeunesse bi man je pense bien que dina ko mën a nangul li nga xam nag moo di expertise boobu mm-hmm. je pense bien que aussi loolu dina gën a renforcer encore li nga xam ne moo di lien entre li nga ci magistrat yi nga xam tey jii ñoom ñoo toog pour juger parce que su nee li nga xam nag moo di homme d'état Amadou Ba xëy na euh, mën na nag considéré entre guillemets comme li nga xam